foofu moom xat ko bi laa jéngéef na ko bihaa ci moom àddina àddinaal ku ci nekk te doo xalaat li nga ci am ci xéewal nga defee ne doo tàqalikoog moom mukk wér gi doo tàqalikoog moom ñàkk gi doo ta am gi doo tàqalikoog moom boo dee xalaate noonu jàppoo ne àddina ab jaarukaay la boo xam da nga fiy liggéeyal ëllëg képp ku ko jàppee noonu mel na ni dañ laa jéng ci àddina niñ la koy misaale mooy misaal waa misaal ma mi ngi mel ni moom misaalum àddina daal mooy ajoo satun màggat gu jigéen dañuy yëtun gu di aji bon nga xam dafa ñaaw lool waaye xafi yëtun aji nëbbuta la fii asubin ci ay mbalaan na fii sëtu yu di aji gànjaru màggat mu ñaaw lool ñàkk solo lool waaye ma nga sol yére yu rafet a rafet bu ko defee nag yaxsibuwaa dana ko jort al ahmahu dof dof bi xii na waxtu wa nga xamee lam yuraa giseeful si waa libaasiya lu dul colam ma àll si ma nga xam ne xat xayara gëlëmal na ko bu ko defee nag bu ko gisee mu tuwaaletu ba jekk nag da koy teg xaaniyatan jonga ma bu ko defee mustadrajan mbir mu muy ku ñu jay bi xubbiyaay ci sopp ko nag bu ko defee mu defee ne kii jonga ma la mu daal di koy nopp bu ko defee tur di dana alak àll si ka nga xam ne ahabaha sopp na ko bi xitbatin ci labat saa su ko labatee nag di ko ngoro nag foofa lay alkoo ndax bu ko labatee ngoro ko bañ may ko ko ba mu yóbbu ko këram xataa isaa mabta sa saa su futtee maa la ngam xat la bi sa sol na ko wajadaa da koy fekk mu faadata muy aju guppuural mooy biir ba rëy te yolom xat xobisat tëjeef na ko da koy fekk itam xawraa muy aji pat xawraa ay ni muy aji pat bët saata cheybin di borom bijjaaw muntinatin bu di aji xesaw bu saaxaa tafliitam ya mustax jënatul lu ñuy yëjj la ndax day tax ba ndang ka tux la bi ni ki mbaalaa mbaal ba tey marxaa hadd bin aji xetambe ji ay xef la xef yoo xam day dagg weex tàll ngir ñàkk tusngalu bët ya di bas saata xalxin muy borom bind jë na mbi buy aji ñaaw zaahira saayiram si nag yaxuru dana wor kulla musnibin yëpp aji bàkkaaru àddina daal bu ñu la koy misaal ñu ngi la koy misaal ci màggat gu jigéen gu ñaaw waaye dafa defaru ba jekk ab dof nag bu ko gisee nga am yére yi rek lay xool day daal di yóbbu am xelam ndax day defee ne jongoma la bu ko defee nag bëgg ko tax mu jey ko nag mu labat ko bu ko takkee ba yóbbu ko këram nag bu ko futtee yére da koy fekk biir ba rëy lool te yolom mu di pat bi jaabu xeeñ xun tafi tafliid ya day bon ratax ban nag mel ni mbaalaa mbaal bët yi day xetambe mu yor bind bu ñaaw kooku nag saayir si mën naa nax képp koo xam ne da ngay topp sa bakkan noonu la àddunay naxe ku amutub seetlu bu ko defee nga daal topp sa bakkan di mooy yàlla te fekk la nga ko jënde jëru ko madda mu mat alaa yeday ñaari loxoom daana daamati mu boroomuk réccu min ku limaa ci lépp loo xam ne adaama saxaloon na ko fii maa ci la ma daa wéy na bu ko defee nag muy mat baaraamam di wiccax di réccu la nga xam ne moom la defoon ndax dafa jàppe woon àddina lu am solo ndeke kaw gi am solo waaye biir ba amul solo mu misaaloon ko ci màggat googu yi nga xam ne day solo ba jekk waaye boo ko natoo rek xam ne tekkiwul dara ama la bi bu daal aji xellu ja fa mataa laaxaa saa su taseeg moom yaftash day gëstu wayen raa njeem gis na al asa lor ja alxaaxaa mu sànni ko ki am xel nag moom su taseeg màggat googu bala koo jéem a ngoro da koy gëstu ba xam nu mu demee su ko gëstoo rek bu gisee lor ja daal di koy wacc wa masaluha misaal nañ àddina ba tey bi ixtilaamin naay mi ci géntug aji nelaw niñ koy misaale ci géntug aji nelaw léeg-léeg nga gént gént gu neex gént am xaalis bu baree bari wërsëg wu yaatu waaye boo yeewoo doo gis dara àddina tam noonu lim lay wan moo gént yam rek dafa laa tiim waaye mi ngi lay weesu di dem kon nag man baa koo xam ne jaay na ko zafira mu tuufu bil xanaay mi ca koom koom ya képp ko am daal da ngaa jaay àddina jëndi ko alaxira am nga koom mu du tàqalikoo te yow bu mukk ndax lañ lay fay mooy alaxira xéewal gu dul dog mu ne man nag aqbalati jublu woon na adduniya àddina ilay jëm ci man xablu ca njëkk waaye wa bextoa jaay naa ko wa zaalati dañ na xannii walif ma alkablu jéng ba wa baadohoo ginnaaw ba nag at bara dëdd na xannii walif ma waaye ba ma dëddoo tam walam amil jéngu ma laxaa jëm si ci moom lu tax li kaw ne yaa ngi nekkam daara zulam di këri ay tooñaange wa baadahoo ginnaaw ba aqbalat jublu seeti na lii ñeel ma wa innii te naka man aqbaltu jublu naa li laay ñeel yàlla wa ab xaate desal na man nii sama xéewal mu ne àddina moom sama njëlbeen mas na maa dëgmal mooy ba nga xamee ne ab sëñ daara la woon doon jàngale donga yu wër ko bari lool waaye ginnaaw ba neen dama koo jaay dama xëy ni leen léegi jàngale koo xam ne jàngale fi indi woon kese baye boo nga takk say kaaki te seeti jeneen daara fii dañuy boole jàngale ak tarbiya ña nga xam ne mënuñoo muñ loola ñu daal di koy wan ginnaaw ba nga am daara ja tas na kon loolu mooy ginnaaw ba moo tax mu ne jaay naa ko ginnaaw bi nag dem ba amatul kenn ku ko topp àddina wan ko ginnaaw waaye taxul nee na mu wëlbatiku jum jublu ci àddina waaye dem naa dem a dem ba mujj mbooloo mi dëgmal ko fu mu sanc ñu fekk ko fu mu dellu mu dolli fa mu dolli ko demaat feneen mu ne fa kullumaa lépp loo xam ne akoon danaa nekk santifaa yi di boroomul jariñu bii ci moom mena duniyaa ci àddina la santifaa yi fa sama jariñu fa noo naka moom yëkkoon daa nekk saadan di bi yóbbal lil jinaan ñeel àjjana ya bandal bu yoo ginnaaw jaay ga wal jihaad ak jihaad ga samti naa ni mbir mooy boroomu xéewlu mu ne kon lépp loo gis ma koy jariñoo ci àddina jubluwu ci lu may yóbbal boo xam dama koy yóbbuloo àjjana ginnaaw ba ma ko jaayanteeg moom ba jihaad ba noppi ahmadu naa sant rabbi sama borom ala xayri waraa ci ngën ji mbindéef kama xaada naka la wommate di ci barkeem ilay jëm ci man aswara saari alquran yi ahmadoo dinaa ko sant xalantihaay sayri ci yamuk sama dox lëxoo ñeel ko moom yàlla sama dox ci yàlla rek la jëm maal maay ànd ak aji far kéefar mu yonte bi wuyub xiita dana desal may di sama xont kon nag na ngeen xam ne li ma am lépp ginnaaw coono laa ko am ndax nabaatukum yee naa leen maan mboole seen alaakaddin ci ab coono boo xam ne badaa feeñ na lii ñeel ma xabla an rida an ara njëkk ba ma laataa gis rida ne ngërëmul yàlla mu abadan lu luñ dappital bi ma laataa am ngërëmul yàlla loo xam du tàqalikoo man mukk coono bu ne jaar naa ja kon nag mënee suta jariñu te sonnu kon nag fa jaahidoo na ngeen jihaat ak mooy na ngeen sonal annu foosu bakkan yi laata tabio bu leen topp en waa bànneexi bakkan yi balli fi nekk itabio topp leen arrida luy maye ngërëmul yàlla rek na ngeen koy def ku bëgg a jariñu noonu ngay def kon nag yaa taaliba duniyaa yow aji sàkku àddina ihfasan wattul wasiyati yi sama dénk fay naa naka dénk bi de xaalisatun aji sell la bi niyati ànd ak sama yéene yéene ju sell ci laa ko defee kon nag na nga ko déglu bu baax te jëriñoo ko li ma lay digal mooy firra dawal men duniyaa ci àddina isaalam takun yëm nekkoo maalika nafsika di aji moom sa bakkan tasir kon da nga mujj saamikan ni borom yi daraja bu fekkee daal yow mi sa bakkan bi yilifoo ko baye boo ngay daw àddina ndax boo ko toppee rek ci musiba la lay jëme ndax àddina mi tuddixiku ko dalay reeloo al yow ma tey watub kii ko waaye dana la jooyloo xadan ëllëg kañ maalam tabihaa féeg jaayoo ko kon ak biix jaay ko tulaasim kon da nga taxoog raxadan yaatu dund bu yaatu kon daal àddina boo ci amee xéewal tey di ree te defoo ci jaamu yàlla ba léegi jooy yu metti donc la lay indil kon nag jaayal àddina mooy maan fexeel ba àddina boo ci nekkee lépp looy yëngutu da doon loo xam ne lu lay jariñ ëllëg lay doon mooy tax boo ëllëgee nga am dund bu yaatu ndax mad moonuhaa li mu làmboo moom àddina mooy alxisiyaanu ngeccite rek wal fadiya ak gàcce wala turité du wan baa iha aji jaayam nag fadiya gàcce àddina loolu la làmb waaye képp ku ko jaay nag gàcce googee moom dégg nga cay am tuubaa texe li man ñeel na ka nga xam ne ashadahoo dëdduloo na ko mawlaahu boroomam fiihaa ci àddina fay noo naka moom turaa def na gis walaahu ak kaweem ci àllaaxira kon daal ki texe mooy ki nga xam ne suñ boroom dëddul na ko àddina nga am yitteem yëpp def ko ci àddina àddina mënees koo ñàkk a yittewoo sax waaye la nga ca yittewoo bu mu la xañ lu lay teye jaamu yàlla lépp loo ci def lu lay teye jaamu yàlla rek loolu na nga ko wàcc waaye lépp loo ci am tem lay yokk ak jaamu yàlla loola lu am njariñ la ndax loola xéewalu ëllëg ëllëg dong la lay andil ilam xamal bi anna diina ci nekk diine chatraani ñaari xaaj la kamaana sa naka la yaxale bii ci moom xable yi sama njëkk baadul xukkama lenn ci xukkamaaw yi lenn ci way xereñe yi diine daal ñaari xaaj la boroom xam-xam yu njëkki noonu lañ ko waxe woon faawulun xaaj bu njëkk ba tarkul manaa yi mooy bàyyi yu ñu tere mut laxan mbir mu muy lu ñu joyal mooy yu ñu tere yépp nga bàyyi ko kon dangay bàyyil almanaa yi yu ñu tere ya li baaxin ngir jëmmi yàlla may aji des at laxaa ko xam ne boyal la kon yi ñu tere yépp da nga koy bàyyi ngir jëmmi yàlla mi nga xam ne moo la jox kàttanu mën a def ak mën a bàyyi wasaani xaaj ñaareel ba fi'lu kulli shay'in mooy jëf lépp lëf loo xam ne umira digaleef na bii ci moom waman koo xam ne yu dimhu dana ko saxal mooy saxal jëfe ndigal yukk fa def na ko fegal al umara ab buur ya kon daal bu ñaareel mooy lépp luñ digle nga def sa kem kàttan képp ko saxal def sa kem kàttan ci ndigal yi suñ borom dana la fegal buur boo xam daf lay lor laakin namal awal waaye bu njëkk ba asxaru moo gën a diis la daa man fas ña nga xam ne amanoo gëm nañ wala samoo te ñu taqoog atta jàllu daa góor góorlu waaye nag bàyyi lu ñu tere moom moo gën a jafe ci ñi nga xam dañoo gëm di jéem a góorgóorlu looloo gën a jafe ci ñoom moo tax wa fii kalaamil Mustafa nekk na ci waxe ku ñu tànn ka sa laa yàlla doon ni tedd nga xalaa ci moom fil aari ci nit ñi moo sant bi ak sant ba ya àll si yàlla ma nga xam ne ab daa feeñal na ulaahu ak kaweem nee na lafsul muhaajiri baatub almuhaajiri ila tamaam ba ca mat ga ndax dafa waxoon ne almuhaajiri man haajara maanaha allahu anhu kuy gàddaay mooy da ngay gàddaay la yàlla tere kon nag faj tamit teetal asoo ñaawteef bilaa ilmaamin ci lul ak wàcc lu ñaawteef na nga koy teet fexeel ba bu ko def waa ak saa niki nii lafsul mujaahidi baatu mujaahid ndax dafa ne almujaahidu man jaahada nafsahu jihaad ku koy def mooy da nga jihaad ak sa bopp ba tere ko ya nga xam ne mooy bànneexee koy lor moo tax mu ne lafsul mujaahidi war a daroot na xanu jóge ci moom xale yàlla nekk ci moom min ilaahin tukkee ci buur boo xam ne in farada wéet na yàlla mi nga xam ne nirul kenn jëmm nirul kenn jëf nirul kenn melo yàlla na def aw xéewal xayru salaat ngën ji dolli tedd nga wa salaamin ak ngën ji dolli wóolu abadan faaw fii bi ànd ak kuréelam ba mooy al alu wa samb wa man ak koo xam ne abada jaamu na yàlla bi àqin ci dëgg ak képp ku di julli rek bokk nga ci ñaan gi faslun lii ab dog la fi tawbati ci tuub fa tawbatul insi tuubug nit ka wajabat war na fawran ci lu gaaw mooy ci saasa rek soo defee bàkkaar bi bulli naa nit ba barab sàngam wala jamono sàngam ma doog a tuub nadaamatun rëccu ala zunubin ci ay bàkkaar yoo xam ne xaajibat daf lay yiir kon da ngay gaaw tuub te bàkkaar yi nga xam daf doon yiir muur sa xol ba doo am mën a leeru ngëm nga gaaw tuub ko xañ son asa fu mu fu moye min xabli ilmaamil asa njëkk wàccug lorja ndax fa innaha naka moom laysat bi tawbatin déet muy tuub isan ca boobee da ngay gaaw tuub ca ba nga koy man waaye dem ba nga xam ne dee sës na rëkk dee rek a fi des nga ñàkk pexe doog naa damay tuub booba tuub dootu am njariñ kon ak fa tuub tuubal li rabbika ñeel sa boroom alali kay aji kawe xawfal maqaam ngir raxaw ragal taxawaay bay am bis pénc taxawaay boo xam ne da ngay yóbbaale bàkkaar mat naa watandiku wala too xiraate bu ko yeexe li ilmaam intiqaam ba ci wàccuk fayu ga bu yomal xiyaam xasee ak si foofu moom tuub dootu am njariñ la nga defoon fokk ñu fay ko fay naa naka moom xiinii sin ca boobee laatan foofu du jëriñ waaye nag wen taxanjeem dana tàbbi min xam li ci njëkk jamono joojee moom fa tan foofu dana jëriñ kon tuub fii ci àddina ba nga koy man moo am njëriñ waaye boo xasee faatu moom tuub tuub ga amatul njëriñ mu ñuy tuubi nag bi li i'tiraaf ci tudd mooy reconnaître nangu ne yaa def bàkkaar sàngam wan na daamat ànd ak réccu maan booli seen da nga koy reconnaître ba noppi réccu loo ko doon defee moo tax mu ne maa taddarruhin kon ànd ak toroxlu li waaye di ñeel yàlla may kenn ma nga xam ne xat xamaanut na kon da ngay boole reconnaître ak réccu toroxlu ci sa borom fii xaali ruxsatin jamono ak yolom awet tëraari wala ak loru moo xam jamono yi nga xamee ne yaa ngi ci sa jàmm ngay tuub wala jamono yi nga xam yaa ngi ci feebar bilaa tawaani ci dul yeexe bu ko yeexe oo belaa israel ak lu nuur mooy nekk ci bàkkaar bi tëkkoo bàyyi loolu na nga ko wattandiku maa jas mi ànd ak dogoom ala adamin xaw di ci ñàkk a dellu ilaahi siyaani rabbin jëm ci ilaahi siyaan rabbi jëm ci mooy boroomam àll si boroomam ma nga xam ne yonti dana joxe al ilaa xéewal yi kon daal nga gis ne tuub ñetti ponk la mooy li nga doon def da nga koy naqar lu rëcc ko te daal di koy bàyyi ca saasa te fas yéene dootoo ca dellu ba mukk ñu koy misaal ci ko joggi aw xal foo ci tegee sa tànk ci saasa da nga ko teggi la nga ko doon joggee da nga ko rëccu da nga fas yéene foo séenatiw xal doo ca joggi sart yooyu bu dojee ci yow rek sa tuub mat na faslun lii ab dog la fii zikri maratibi tawbati ci tudd ay darajey tuub tuub dafa am ay degré yoo xam ne dañoo rawante mu ne àddoo lim nañ li tawbati ñeel tuub minal maratibi ci ay daraja sabxatun juróom-ñaar tuddaa def na ko xam la dal makaati bi fas daara ya daara yi jàng xam-xam daal tuub danañ ko limal juróom-ñaari dëgëre bu njëkk ba mooy tawbatu kaafirin tuubug ab yéefër minal kufri ca kéefër ga ashadidi ga di aji tar bi isni rabbi ci coobaree boroomam moo ko xeetal ci mu tuub ndax yahdi man yashaaw wa yudillu man yashaaw yàlla dana gindi ku ko soob dana réeral ku ko soob kon nag mu tuub nag ila diini jëm ci diini ja assadiri ji di aji jub muy lislaam wa tawbatul muxlisi ak tuubug aji sellal ja min kabaayir ci bàkkaar yu mage ki nga xam ne dafay sellal ak jaamoom bàkkaar yu mage yoo xam daf koo rëccoon mu di ko tuub bàkkaar yu mage danañ ko lim ci kanam tuuti yooye lu mu ci def sellal ak jaamoom ak sellal ngëmam moo tax mu koy tuub kon boobu mooy bu ñaareel bi wa tawbatul odooli ak tuubug way maandu ya min saxaayiri ci bàkkaar yu ndawe ki nga xam ne mooy aadil mooy ma ngay jaamu yàlla di sàmmoonteeg digganteem ak boroomam bàkkaar yu mag yi du ci def benn waaye la koy jot a rëcc ci bàkkaar yu ndaw yi loolee lay tuub mooy bu ñetteel bi wa tawbatul aabidi ak tuubug aji jaamu ja zil xayraat kay borom yiw ya mimmaa ca la nga xam ne yasuuhu dana ko naqari minal xasaar ci ay fakastalu jaamukatu yàlla bi nga xam ne lu baax rek lay def waaye léeg-léeg nag mu juum njuumte yooyu muy def loola lay tuub mooy fakkastalu yi wa tawbatu saalika ak tuubug aji sóobu liltifaati ngir ak geesu min ilalil xalbi ci ràggi xol wa min aafaati ak ciy gàkk ki nga xam daa sóobu yoonu yàlla fase àddina wan ko ginnaaw xeeti ràggi xol ya nekk ci moom mu yëg ko ci boppam di ko tuub li ki mën naa grab ràggu xol gu mel ni ngistal wala ndéggtal wala rëy wala yu demee noonu yi tax mu di ko tuub wa tawbatul warihi ak tuubug aji sàmm ja fii jihaati ca wàll ya mimmaa ca la nga xam ne yesuuhoo dana ko naqari mina shubhaati ci ay lënd ki nga xam ne dafa sàmm mooy ki nga xam ne mi ngi sàmmoonteeg ndigali yàlla yi di watandiku ay tereem waaye ya nga xam ne am lënt la xamut araam na wala dagan na la mu ca jot a def te amu ci lu ko leer loolee lay tuub wa tawbatul mushaahidina ak tuubug way jàkkaarloo ñi te jiri dana daw moom tuub googu min xafalaatin xal bi ngir càggantey xol xaw fa sajjiri ngir ragal ak jàjj ñi nga xam ne dañoo àgg ci sell bokk ci mu xarraboon yi nga xam ne màggu seen borom fuñ toll ñu ngi koy gis ci seen xol saa su seen xol dara fëkk ko ba xalaatul màggu borom ci wenn waxtu rek loolee la ñuy tuub ndax ñoom fu ñu toll rek dañoo war di xalaat màggug yàlla gi nga am seen xel wërta xalaat leneen lu loolu fu mu leen dëcc ba bañ xalaat leneen lu màgg yàlla gi nag loolee la ñuy tuub kon xeeti tuub yi juróom-ñaari ñu ngi noonu yi seetal boo ci tollool nga daal di koy def fa baadiri gaaweel at tawbata tuub ga wal tamit sa sàkkul arsa jub ga min xable xalxi baabeyaa njëkk tëj buntub tuub yaamul tamit yow aji sàkku gaawal tuub ndax juróom-ñaar yi am na ci koo ci tollool foo ci toll nga tuubee noona bala ñu tëj buntub tuub mooy boo demee ba pexe jeex foo tuub dootu am njariñ waddax bàyyil xan ka walif la but an ak yeex mooy yeexatu bàyyi ko maa takkasuli ànd ak tayeel wax sil te nga raxas dana sal israari tirub nuur loo koy raxase bi sidix ci dëggalu xol kon daal bul yeexi sa tuub bul tayeel nuur ci bàkkaar sikk la soo xam ne ku nekk ci war nga ko jéem a dindi ana loo koy dindee mooy dëggal sa tuub fas yéene bàkkaar boobee nga bàyyi ko fal xaaliku aji alkuja asax yu koy aji texee di jiddan lool man mooy kam xaraja génn na minaa si duniyaa tukkee ci jile àddina bi san bin ànd ak bàkkaar wa xarajin ak bàkkaar ki nga xam daal moo alku te ñàkk sens lool mooy koo xam ne bàyyikoo na ci àddina si yóbbaale bàkkaar ci àllaaxira ndax bàkkaar ba fokk ñu fay ko ko kooku nag kon amul sens ndax xeeti tuub yi am na ci gum man min xab li tawbatin jékkub tuub na soowen guddi aji sell lil ali ñeel yàlla may aji kawe subaanoo yéem naa sellam ga rabban mbir mu muy buur aliyun bu di aji kawe lil kursi ñeel kursi yàlla mi nga mag ca kaw xaras mu tuub tuub gu sell daal balaa faatu loolu la war a def fasul li ab dog la fil kabaayir ci bàkkaar yu magee bàkkaar yu magee mooy yi nga xam ne soo ko tuubut suñ borom du la ko jéggal yeneen yi ci des nag moom muy bàkkaar yu ndaw yi soo dee def ay xasanaat mën nañ la ko jéggal ndax inal xasanaati yusibna sayiaati boo saxoo jaamu yàlla yalay rëcc yu ndaw yooyee xasanaat yooyee ñoo la koy faral waaye yu mag yi moom fokk nga tuub leen kon kabaayirul asina way magi bàkkaari way moy yi badat feeñ na xisiri na di ñaar fukk xam man jële fa ña nga xam ne nu xoolum seen toxal saxiixatun aji wér la xadat te gindee na itam ñu jële ko ci ñi nga xam ne moom la ñu toxal lu wér la te mënees na caa sukkandiku bu njëkk ba mooy xoj bun kaaw kaaw mooy loo def rek yéem ko boo jullee sax daal di koy fan ah man de julli naa defe ne yow rek yaa julli fonk sa julli ga lool naw ko wa kibrun ak rëy mooy yëg sa bopp ba xeeb ñëpp xasadun iñaan loo gis waaye am ko te amoo ko doo ko yéene da ngay bëgg mu jóge ci moom ñëw ci yow loolu nag wuute na ak mébét mébét moom ku ne dana ko def ni ki boo gisee mu am lu baax nga bëgg am lu mel noona waaye bu mu tee nga yéene ko la mu am loolu mu araamul li araam mooy xiñaan maariyaa ànd ak njistal mooy lépp looy def bu fekkee yaa ngi koy def ngir yàlla tam nit ñi gis la dana tax nga di ko def nga xam ne na nga koy defee ci kanam nit ñi soo beroo woon doo ko defee noona masalan bu ni ngay jullee ci kanam nit ñi ni nga koy fonkee boo nekkoon ci biir néeg ba du jullee noona kon yaa ngi boole yàlla ak keneen loolu mooy njistal moo tax ñu ne mooy ashirkul asxar mooy bokkaale gi gën a ndaw kon nag ñeent yi ma wax muy ojbun ak kibrun ak xasadun ak riyaun muxtasatun aji jagoo la bil xal bi ca xol ba daalan mbir mu muy ñeent fadriyaa xam ko kon yent yooyu moom ci xol lañ koy defee waxu sa jagleel bil yedeni ci ñaari loxo ya alxatlu bàkkaarub rey nit te tay ko te séqu leen lu la yoon def loo nga rey ko nga xam na nga koo rey rek ngir ëpp ko doole ak ku noonoo boo loolu ci bàkkaar yu mag yi la bokk mislu sarixati kem càcc ñaari bàkkaar yooyu moom ci loxo lañ koy defee kon nag uskur santal àlla si yàlla ma nga xam ne kafaaka fegal na la alfasaxata way saay saay ya alfasaxa mooy jëmu faasixun rek mu ne waxiibatun jëw mooy tudd sa moroomum julit fu mu nekkut te la nga koy wax bu ko déggoon dana ko naqari moo xam dëgg la moo xam du dëgg loolu jëw lañ koy tuddee namimatun rambaaj mooy toxal waxtaanu jàmbur jëmi ko ci keneen te jublu ci yàq seen diggante ñoom ñaar ñooñee ak lu riba lekk riba mooy lekk alali jàmbur joo xam ne ab xolam téeyu ci wala na nga ko lekkee yeeyoowu ko booy jàng risaala danañ la leeral dëgg-dëgg riba ndax ñaari xeeti riba dafa am riba boo xam ne da nga koy lebal ñaar fukk ne ko nag boo may fay fanweer nga may fay ndax fukk yooyee mu ca teg xam nga yeeyoowu ko boo koy lebal da nga koy lebal rek ngir sa moroom jullit jaaxle na nga dimbale ko ngir jëm yàlla waaye bu ca teg dara xeetu riba bi ci des mooy bi nga xamee ne léegi daf lay ameel ñaar fukk ne la bu weer wi dee danaa la fay ba weer wa dee amul ñaar fukk yi ne la damaa bëgg nga yokkal ma dig bi dolli laat ma weer bu ko defee bu weer wi dee danaa la fay fanweer bu weer wa dee tee mu ñëw yokkati dig mën naa dem ba ma téeméer te fekk ñaar fukk dong nga ko joxoon kon la ca tege lépp xam nga ne yeewoo ko kon loolu ci bàkkaar yu mag yi la bokk yooyu nag mu ne xussat jagaleef na ko bi famine ci gimmiñ mis lu xam leen kem sàngara su riba sos naaneef na ko kon lu mel ni jëw rambaaj lekk riba naan sàngara yooyu bàkkaar moom gimmiñ a koy def kaak li am waalil yatiimi ni ki lekk alali jirim wal yamiin ak ngiñ ay lim ci jumu jublu alxamuusi barim nuuraakoon ngiñ loo xam ne da nga cay nuur dogu ca te doo ko seetee doone incha allah loolu ci bàkkaar yi la bokk kon wax yi ñoom kon xaa un juróom-ñett lañ laa amin du ma nar kon yi ñuy defee ci gimiñ moom juróom-ñett la wax na la juróom-benn ngi noonu saadatu sóori seere ay neen loo xam ne yaa ngi koy seere ne maa ko fekk ne dara amu ca xëy na lu ñu lay neexale moo tax wala bañ ka ngay seereel moo tax waaye la ngay seere amut loolu tam ci araam yi la bokk waxas ful muhsanaat ak xas jigéen ñi di way sëngiw sëngiw jigéen joo xam ne dafa jomblu du njaaloo nga jiñ ko njaaloo te amoo ci lu la leer te fekk na moom am na boroom kër saaminatul kabaayir yi aji juróom-ñetteelu bàkkaar yu mag ya almustanaat yi di ñu yéjji kon mooy boobu xas jigéen joo xam dafa sëngiw mooy saaminatul kabaayir mooy aji juróom-ñetteelu bàkkaar yi almustanaat yi di ñu yéjji mooy yaa am dañ koo ñaawlu kon ñoom ñetti bàkkaar yi nga am ci gimmiñ lañ koy defee mooy yooyu mu lim kon mooy jëw ak rambaaj ak lekk riba ak naan sàngara ak lekk alal jirim ak ngiñ loo xam danga cay nuur ak seere ay neen ak xas jigéen ju sëngiwul mooy juróom-ñett yi nga xam ñu ngi aj ci gimmiñ sinan njaaloo liwaatun def yi fi góor jigéen mooy góor guy sëy ak góor xusaa jagleef na leen ñoom ñaar bi furoo jim seeni pëy fàqa dong yaar yooyu moom ci pëy lañ koy defee fa man maa la ku jeng ilayhima jëm ci ñoom ñaar saxatam rot ci yoonu lislaam képp koo xam daal dafa jikkoo njaaloo wala mu jikkoo yi fi góor jigéen te tuubu ko bàyyi ko kooka moom bokkatul ci diine ji fansi lii yawun fukk ak juróom benn la minal kabaayir ci ay bàkkaar yu mage danga bàyyi ko fama ma biitoo déet la nga xam ne jaay naa ko bi baa irin muy aji lamb loolu la ko daanee la way wi rek kon juróom-ñetti kabaayir yaa ngi noonu te ñaar fukk lañ la waxoon falaa tamit bul jeng ilaa la yaa din jëm ci dara minaa ci bàkkaar yooyu wa jumlatal asraate mboolem secret ya fii ka ci yow sunu xaa ñoŋal ko amalati ndaal ya nga xam ne amat matala na jameel gis mi mboolem yaram yi fa arbahun ñeent la xaawil sàkkul ajal la xis mi gën jaa màggi séddale ñeent yi nga xam ne moom yaram yépp a koy bokk kon ñeent la kon bàkkaar yi nga xam ne yaram yépp a koy bokk moom ñeent la ba ci njëkk mooy xuquuqu waalidayni mooy ñaari waajur bañ a topp seeni ndigal ci bàkkaar yi gën a màgge la bokk wal firaaru ak daw min sax fi man tukkee ca doxub ña nga xam ne jumlatum seen mbooloo siraarun ay kees lañ maa dawee ci xare nit nga doonum jullit di xeex ak yéefar di daw daw googee kon ci araam la bokk lu may bokk yéefar yi dañ laa ñett ca wala ñeent ca la te fekk jullit yi matuñ fukki junni ak ñaar waaye suñ xasee mat fukki junni ak ñaar lu yéefar yi bari bari amutoo sañ-sañu daw saalisu ñetteel ba ifsaadu maalil muslimi yàq alali jullit mooy yàq alalam te xolam séddu ca raabi waa ñeenteel ba tarku salaati bàyyi julli fan la mi xamal kon bu ñeenteel bi nga xam ne mooy ñeent yi nga xam ne yaram yépp ko daj mooy bàyyi julli moom nag mooy bi ci gën a garaaw ndax képp koo xam ne bàyyi nga julli rek dootuñu la jàppee jullit ndax diggante yéefar ak jullit la leen di xàmmee mooy julli watruku bàyyil sabilal axbiyaay yoonu way réer ña almontadin ñi di way jalgati wasluk te sóobul sabilal askiyaay yoonu way ñëw ña almontadin ñi di way gindiku na nga bàyyi yoonu ñi nga xam dañoo réer tey tooñ te nga jaar ci yoon yi nga xam ne dañoo am xel te jaar ci siraatul mustaqim xal ndax anta yow temps yi da ngay mooy man yàlla ma nga xam ne xabaa maye na bil baa ihi ci aji dagan ja xataa taxoode ba da nga xuus ab xural xabaa ihi géeji bon bon ya wajaxala te def na albaayi aji dagan ja xaayidan mooy aji wommate ilaa jinaan ilaa jinaanihi jëm ci ajjanaam ya allati ya nga xam ne xawat làq na kulla ilaa bépp xéewal laa tastahin bul sàkkoo dimbanikoo bi niyaami laay ci xéewalu yàlla anaa siyaani ci moy ko bal li fi nekk rum sàkkul bihaa ca xéewal ya xayran laa ngën ji ak kawe ndax da ngay xam ne inal mubaaxaat naka yu dagan yi isaalum tuf di njéem àggalewul ilal jinaani jëme ci àjjane fa tuf di dana àggale li naari ñeel sa wara kon daal xéewal yi la yàlla defal bu ko dimbanikoo ngir di ko moy ndax lu dagan kat su la yóbbul àjjana fokk mu yóbbu la sawara waaye du nëtër moom di la seetaan albaabu saani buntum ñaareel ba fii tatxiiril xal bi ci laabal xol ba wa jumlitul jawaar yi ak mboolem cër yi mu ne alxal bu xol ba kalmaliki ni ki buur la fil aadaay ci cër ya mahmaa yemin fu mu fu jenge tamil cër yi danañ jeng maaqtidaayin ànd ak waral xol daal boo ko seetee ni mu demee ci cër yi ci des mi ngi mel ne mooy buur bi fu mu jëm rek cër yëpp par force ñu jëm foofa kon nag wayn tuuti njëm da nga namm isla aw saalin yéwénal ay cër maan boole seen li wa ci man ngir jëmmi yàlla ma nga xam ne xamaa not na lee ñeel ma xidaaw ay noonam boo bëggee yéwénal say cër daal fa asli yéwénal alxal ba xol ba bilaa tad nii si ci dul di ko téréel xataa turaa ba def na la gis saa ta nii si ngay borom wéttaliku billaay ci yàlla boo bëggee yéwénal say cër daal xol bi nga xam ne moo leen jiite moom nga yéwénal ba lenn luy taq-taq du ci nekk benn jikko bu bon daal bu ci nekkul rek cër yëpp dañu topp ci ginnaawam fukk lu man képp koo xam ne raa gis na si wallaay ku dul yàlla al ahad kay kenn fii ay seen ci lu mu ci lëf foofu moom murtadun aji tubbi la joo xam ne jaxaada weddi na tubbi mooy nekkoon ci diine bi yaa nga génn ci koo xam daal menn mbir yaa ngay defe ne kenn mën na koo sabab mbaa mu amal ko ci lu dul coobare yàlla loolu ku ko xas fas rek yow murtad nga fa kullu man képp koo xam ne raahu gis na ko fii kulli layaan ci lépp lëf jaada mu tabe lawoo ñeel ko minu ci moom bi afdali ayaat ci ngeen ci ay xéewal koo xam nag jàpp nga ne lenn balaa yëngu wala balaa dara am yàllaa cay ànd loolu su ko defee suñu borom dana la defal ay xéewal ndax yoway al muminul xaq fas mi ab dog la fil xal bi ca xol ba mu ne taxir laabalal fu aada ko sab xol mina rasaayil ci ay caay-caay caay-caay mooy xeeti jikko yu ñaaw yi li ki xeeti njistal ak réeg fen ak rambaaj ak yu demee noonu waxal lii te nga takkaayal ko bi afdalil fadaayil ci ngën ji ngëneel yi kon xol bi daal na nga fexe ba jikko yu bon yi nga raxas ko ci ba mu set wicci te takkaayal ko jikko yu baax yi ni ki dëggal ak am wëllëre ak yu demee noonu wajtani bi teetal alxasar ak kiñaan war yaa ak njistal